n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique totale Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daa di fay def alimentation daa di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp loo soxla boutique Total bi yemul foofu dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow boutique Kër Xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ne décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci tuubaa am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen a réservé pour seeni conférence seeni réunion seeni cérémonie seeni pause café seeni ndaje lu ngeen ca soxla rek équipe bu mucc ayib boo xam ni ñëpp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar terrasse ba am na pâtisserie am nañu traiteur woo ñu ci 33 976 03 39 77 899 45 45 wala 76 354 44 44 wala 77 583 17 17 boutique Kër Xaar nekk dans la de Touba. yaa loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la ci la xewal yi shahr ramadan ya karim ramadan ya habib ramadan mu ëmb leen mu yaatalal sa xol sàkku yërmande ngela waay bu ci mooy yàlla tuubal jéggalul dellul ci yàlla lu mën ci lu baax bul ci tay mengook safaan ba nanga ko baay waaw. lii de moom nekk na loo xam ne kii ma boole ak yow muy soxna su faatu mi xamante nañ baax waaw li ma xamal nag mooy man soxlawu ma maanaam yaay kan ak yaay nangam li la fi daal ci lay dugg rek waaw léegi nag benn yaar yat yent juróom juróom benn juróom ñaar lii yëpp xaatim la. waaw xaatim la de ci sa kii kii la jëm waaw boo yeexee nag xaw ma da ngay woor xaw ma koor waaye doo fi woree. fan laa jëm. xanaa ci bit. waaw xaatim baa nii. deretu unku lañ ko bindee. musuma laa wax dara muy dañ. xanaa def ni moro ni mu mi daan def mu def. ndax yaa ma dimbale. yow daal maanaam xool nekk de te doomu aadama bu ne war ngaa xalaat lu bari. lii ngay def déglu ma lu araam la muy lu mel ni njabar ak damye ak yoote ak carte lii nga def gàddu sab la yi di dugg ci kër yi di seet naan juróom-ñaar la taxawee ak juróom-benn la taxawee. sama liggéey déglu ma ma wax la. lii nga def dafa araam doon ko buru weeru koor sax dafa araam sëriñ bi waxoon na ci lii ngeen di def seet gii ngeen di seet dafa araam mu mel ni listixaar la joxoon tegtal fanaanoo bësal nga xëy wax bu borom li xew waaye lu mel ni seet yi ngeen di seet lu mel ni euh, pitaaw dafa araam kon yow lii ngay def dafa araam dafa mel da ngaa war ci fasu iblis te kenn xam foo taxaw ji li ma bëgg sëñ mooy eh jógal sëñ bi yow man indi woo ma fi indi woo ma fi man man la ilaha boo la fekkee dinaa la def lu bon lii mooy sama liggéey bu dee sama liggéey tey dinaa la sëñ bi wuy ma wax maa la fi indi li ma lay def loo def. sëñ bi àggaleel man man. sëñ bi jiw he he he waaye bu ma. waaye yow he. àggaleel man ko faale defal la ma la def. ah dana ma ne ko. eh Ibrahima. waaye jërëjëf jërëjëf. barke Alaaji Ndiouga Kébé xoolal li wuy ma.